إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala nga la waay ab jaam foo toll del sant yàlla del muñ ay dogalam kon mu yokk la ay xéewalam teggil la say tiis ñi ngi seede na moom dong yooyu ñu koy jaamu yonent yàlla muhammad mooy jaam bi mu yónni woon ci ñun ngir mu jàngal ñu naka lañ koy jaamoo yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak i saxaabaam ak ña koy roy ba ilaa yawmi diin ay yéen mbokk jullit suñu xutbab tey bi mi ngi jëm ci benn saar bu ñuy tuddee suuratu nuur suuratu nuur mooy saarug leer gi suñu borom yàlla moo ca wàcce aaya boo xam ni day xamal ni moom mooy leeral asamaan yi ak suuf waaye it njub gu leer ci yàlla dong lay jóge xol bu leer ci yàlla dong lay jóge loolu moo tax ba ñu tudde ko saar bi di saaru leer muy saar woo xam ne dafa ñëw ngir laabal kër yi yëkk ci seeni daraja indi fa jàmm ak leer waaye laabal société l'islam yékk ci seeni daraja dàq fa bépp lëndëm saxal fa la nga xam ni moom mooy ak leer ba mboolem jukko yu kawe sax ci ñoom mboolem jukko yu ñaaw wala jukko yuy teqale wala jukko yu jur fitna lépp sori leen loolee mbokk su doon jullit ñi xam nañu li nekk ci suratu nuur wallahi dañuy gis ne suñ ko jëfee jàmm dong la ñuy am àdduna jàng jàmm dong la ñuy am alaxira loolu moo tax ba kii di Ali ibn Abi Talib bi mu nekkee amirul muminin am na benn aj dafa ne ibnu abbas na dem jiite aj gi keroog ba mu demee ci arafa ba muy xutba julit ñi bokk na lu mu def mooy dalee na taril suuratu nuur tafsiral leen ko leeral ko ba ki nga xam ne moo doon nettali xadis bi daf ne wallahi lii xatta yéeféer yi xamul dara ci lislaam buñ ko déggoon daan tub dugg ci lislaam ña ca am xel ca ñoom ndax saar bi la muy woote ci laabal jukko ak yëkkati ay daraja ak jéggale ak leneen ak leneen mbokk loolee la ñuy gis ba tey loo xamee ni nii Ubay ibnu Kaab nettali na ko nee ne day yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee Madina waa ansaar fat leen arab yépp dañoo def benn takk ngiree fay lislaam loolee tiital saxaaba yi lool mënuñu nelaw guddi mënuñu nelaw bëccëg suñu borom yàlla wàcce ab aaya ci suratu nuur daa dina yàlla day mi ngi dikk ñi gëm ci yéen tey jëf lu baax ne danaa leen wuutal ci kaw suuf na ma fi wuutale woon ñi leen jiitu woon seen diine ji danaa ko saxal daan dem ba di ma jaamu duñ ma bokkaale ak dara ànd tiitaange gi ñu nekkee ma wëlbati ko def ko jàmm mbokk keroog la saxaaba yi ànd ak ndal xel commencé nelaw nelaw yu dal xam ne yàlla du wuute ak i digam ay yéen mbokk jullit lu mel nii la ñuy gis ne ko mel na Al-Bayhaqi soloo na ci ne yonent bi alayhi salaam daana wax fexe leen ba yéen góor ñi ngeen mokkal suuratul maida mooy saar bi nga xam ne moo mujj a wàcc di daganal ak di xaraamal e waaye yéen jigéen ñi fexe leen ba mokkal suuratu nuur ndax saar la boo xam ne dafay yéwénal kër yi ca place ba gën a màgg bu jigéen di occupé mooy mu daal di fexe ba yéwénal la nga xam ne mooy këram lii it la ñu gis ne Omar ibnul Xattaab bi mu nekkee amirul muminin bindoon na amiram ba nekkoon ca kaw fa ca iraq ne fexe leen ba jigéen ñi ñu jàngal leen aaya ya nekk ca suratu nuur mbokk lan mooy suratu nuur saar la boo xam ne lan la ñuy jëkk a moytuloo muy bakkaar bu bon boo xam ne dafay jur fitna fu ko yàlla tudde ci alxuraan lu ci bëri teg na ca ak rey ngir na mën a indee ak rey di yàq ay jukko di sànni kersa ca loolu mooy njaaloo sunu borom yàlla ni ñépp ñoo xam ne da ngeen leen a jàpp ñuy ay ndaw wala mag waaye mosuñu dugg ci sëy ñu gis leen ñuy njaaloo nañ leen dóor képp kenn ci ñoom téeméeri yar lii la borom bi subhanahu wa taala wax ca bu ngeen leen di dóor bu leen leen yërëm ci diine yàlla ji ca boo leen kenn dóor ci biirub néeg nañ ko seedaloo julit ñi mu boole kon duma yu ànd ak toroxal képp koo xam ne def na jëf bu ñaaw boobee nga la waay yow jeune bi may dégg te xam ne àtte lislaam boobu amu fi it xamal ne lii mooy xaar ci moo waroon a xaar ci àdduna képp koo xam ne day njaaloo amma bu loolu tegewul sa kawit lay xaar ci àllaaxira moo gën a màgg ngal la waay moytu leen loolu seen kémtaleel kattan mbokk njaaloo googee su doon te ne nii ña koy def dañoo mës a sëy moom islam dane nañ leen génne société bi nañ leen rey suul leen kenn dootu leen gisati loolu la lislaam wax suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa di woote tamit ci ñu def attention ci dóoral nit ki ak njaaloo mu ne képp ku fi dóoral nit ki ak njaaloo ca yow indi woo ñeenti seede nañ la yóbbu ci penc ma duma la juróom-ñetti fukki yar te xam ngeen téeméer ak juróom-ñetti fukk soreewul duma leen ti juróom-ñetti fukki yar xatta jëkkër boo xam ne daa taxaw ne soxnaam si daa njaaloo wala doom bi juruma ko da nga taxaw indi ñeenti seede wala nga taxaw waat ñeenti yoon ne li may wax dëgg la juróomeel ba bu dee du dëgg yàlla rëbbum yàlla wàcc sama kaw mbokk lii mooy la nga xam ne tamit islam da koo indi ngir société bi ñoŋ ci jëf waaye ñoŋit ci ay wax suñu borom yàlla tëkku ñi nga xam ne seen wax yépp mooy fexe ba tuumal nit ñi tasaare ak ñaawteef loolee mu dem ba mujj banaal rawatina suñ jamono yi tey jii ak a jafe nga gis benn journal te gisoo fa li ñuy tudde viol kee violé na doomam jarbaatam ay personnalité yu ñuy jiñ ak njaaloo waxumaa nag la nga xam ne moo nekk ci internet ba loolee mbokk julit kenn wuru koo toxal kenn wuru koo gëm bal suñu borom lan la ñu wax heure boo déggee sa mbokkum julit ñu tuumaal ko la ngay war a jëkk a xalaat mooy lii de bu doon mën a duma ko def kon lii du dëgg ay tuuma la suñu borom mu ne même boo demee ba am ci firnde yu leer ne lii moom am na ngallaawaay xamal ne waroo nekk di ko nettali kenn waroo nekk di ca wax mi ngi noonu maa yakunu lana an natakallama bi haza ndax loolee mbokk yàgg a wax mbon yàgg a nettali mbon day tax mu banaal ba naka nit ñi ragale woon dootuñu ko ragale noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk julit suñu borom jàll wa ala moytu loo ñu ci saar wu màgg woowee la nga xamee ne nii mooy topp jéegooy seytaan mbokk seytaane suñu noonu la heure bu la bëggee dugal ci mbir du la jël rek sànni la ca waaye dalay nax nank-nank nank-nank looloo tax borom bi subhanahu wa taala lépp loo xam ne dafay yóbbu ca njaaloo googee borom bi daal di ci indi attention nit ñi ñu bàyyi ci xel benn la jiitu kër yi nañ ko ñoŋal ki nga xam ne daa nekk ci këram nekk ci sécurité am rawatina jigéen nga xam ne am na droit bu nekkee ci këram dindi mura dindi muraayam suñu borom mu ne ay yéen nit ñi kenn amul droit dugg kër jàmbur lu dul ne dangaa laaj ndigal bañ jox la ndigal waaye ñëw kër jàmbur ubbi rek dugg kenn amul droit ci loolu loolee buñ leen waxee dellu leen dellu leen loolu mooy ñu jóge ci bitti ñu ñëw ci biir kër gi suñu borom mu ne eh yéen ñu dëkkee kër gi kenn ci yéen bu mu dugg ci néegu jàmbur lu dul daa jëkk a fëgg ba mu jox ko ndigal na doon bàyyi sa néegu doom na doon yaay sa néegu kum mën a doon bul dugg mukk lu dul dañoo xam ne yaay nga ñëw ñu jox la ndigal xale yu ndaw yi may nañu leen ñoom ñu dugg sans ndigal sauf ñetti waxtu buñ jullee gee ba pare même xale yu ndaw yi nañ laaj ndigal avant fajar même xale yu ndaw yi nañ laaj ndigal après tisbaar jamono sieste même xale yu ndaw yi nañ laaj ndigal lu waral loolu mooy doomu aadama bi dafa war a sàmm awraam ca gis awra dafay woote ci njaaloo loolee tax suñu borom yàlla tere loolu gannaaw ba borom bi jàlla wa ala daa di ne ay yéen góor ñi ak yéen jigéen ñëpp fexe leen di sajj seeni gis bu leen di xool lépp loo xam ne dafa jëm ci awra loo xam ne boo koy wax tey nit ñi ay reetaan la leen di def wallahi ay reetaan la leen di def waaye mbokk maa ngi lay xamal ne jigéen bii nga jàkkaarlool ci télévision bi mu futti yaramam nga jàkkaarloog moom di ko xool pendant des heures moog jigéen ba nga dajal ca mbedd ma mu futti yaramam ñoo yem yow mi yor sa portable di gis la nga xamee ni ni mooy jigéen ñu fëtteeku rawatina ña seen xol yàqu ba ñuy dem di xool ay porno yaag ña ko doon xool ña koy def ci jëmm yéen a yem loolee suñu borom yàlla nee na su ngeen bëggee seen xol yi laab su ngeen bëggee mën a fegu ci lépp li forme njaaloo fexe leen ba yéen góor ñi bu leen nekk di xool ay awra waaye yéen jigéen ñi bu leen nekk di xool ay awra mbokk suratu nuur mi ngi nii woote ñu jëme ci la nga xam ne moom mooy alxijaab mooy jigéen ñi nañuy def xijaab mbokk lan mooy xijaab la ci gën a feeñ mooy soxna si na muur yaramam yépp ba mu des xar kanamam ak la nga xam ne mooy loxo yi fa ñuy takk montre jëm suuf ca borom xam-xam yi gën a tolérant waaye bokk xijaab mooy fexe ba doxale sa diggante ak góori jaambur yi ay kiiraay looloo tax nekk di wax ak ñoom di lem sa baat di neexal di leen charmer loolee dafa doon lu xaraam nekk di wéet ak ñoom cib néeg loolee dafa doon lu xaraam nekk di ànd ak ñoom ci tukki sans mahram loolee dafa nekk lu xaraam nekk di jokkalante ak ñoom ay loxo loolee dafa nekk lu xaraam ba ñu ngi gërëm kii di président de la république bi nga xamee ne am na benn waay boo xam ne xamul lu ay lu mu réere biig taxaw di ŋàññi la nga xam ne mooy doxalinu lislaam di ŋàññi naan lu tax lislaam di araamul nuyu di ŋàññi lu tax lislaam di def nangam ak i nangam bañ ko yëgee lañ ko wàccee fa lillahi alhamd mbokk ñooñu xamuñu diine islam daa ñëw wane na góor ak jigéen yéen a bokk société bi waaye nag société boobu ànd leen liggéey bu leen ànd lu dul fa nga xam ne fa ngeen war a ànde loolee bu amul rek day jur fitna tey jii jàkk bi yépp courant la waaye courant bu nekk fiil yaa nga ànd waaye du ñu daje lu dul fa ñu war a daje sinon boo ko defee tëf lay def lépp yàqu loolu moo tax lislaam tëral la nga xam ne mooy ay yoonam jigéen terewuñ ko mu nuyu ay góor man ngaa nuyu say baay say frère say nijaay ñooñu ñëpp l'islam terewu la loolu ña nga xamee ne ñooy say jegeñaale mën nañ gis sa taar bu ba nga xam ne mooy féete kaw kon islam dafa bëgg a laabal société bi waaye islam ñëwul di wàcc jigéen di toroxal jigéen comme ñoom nañ ko xalaatee di wax wax yu bon yooyee nga xam ne dañ koy wax mbokk lii mooy suratu nuur ñaax na la nga xam ne mooy kilifa yi ne nga la waaye société l'islam nañ yombal sëy yi nañu fexe ba góor ñi sëy nañu fexe ba jigéen ñi sëy amul lenn lu gën a mën a indi équilibre ci jeune mooy mu fexe ba am soxna ki nga xam ne dafa am soxna day nekk responsable ki nga xam ne day am soxna day mën a téye boppam ci njaaloo moo tax yonent bi alayhi salaam daan wax ay yéen jeunes yi képp ku ci mën a takk soxna na dem takk soxna koo xam ne mënugu ko nga la waay nay wóor ay bis ngiree loolee mën koo téye ba mu bañ a dugg ci njaaloo googu doonte ne da nga koy man dog caa dugg boo ko mënul suñu borom mu ne na nga fegu moytu ba baa yàlla di indi ay xéewalam ci yow ca incha allah bépp jeune boo xam ne fekk na boppam téye yaramam téye ay bëtam muñ ca yàlla tax fokk yàlla dana ko bettee ci sëy bu barkeel na doon koo koy góor la na doon koo koy jigéen la ay yéen ba ko julit suratu nuur mi ngi nii di saar bu ñuy ñaax ci ñu sakku ji xam-xam suñu borom yàlla juróom-ñeenti yoon wax na ci moo wàcce ayatin bayyinaat ayatin mu bayyinaat ay aaya yu leer yoo xam ne day gindee ca it nga la waay julit xam leen ne alxuraan jii ñu yàlla wàcceel yàlla wàcce wuñu ngir ñu koy jàng rek yàlla dañu ko wàccee ngir ñu comprendre ko dégg nga bi may nettali sànq xutba ibnu abbas ca ca arafat ki ko doon nettali nee na ba mu taree suuratu nuur ba tafsir ko nee na jàpp ne ne yéefar bu ko déggoon sax da nga dugg ci lislaam kon jullit ñi fokk ñu tafsiral leen alquran looloo tax yéen góor ñi ak jigéen ñi yépp ak ngan la waaye fagaru leen dugg leen ci internet bi da ngeen gis tafsiru suuratu nuur su ngeen ñëwoon fii ci jàkka ji laaj xale jàkka ji clé bu ngeen yor daañ leen ci dugal ak tafsiru suratu nuur ndax lii nga xam ne moom la ñuy wax ci xutba bi daa mel ne rek siwo bu ñu tànq ci mbalka mënuñu mënuñu mënuñu wax sax centième ba dañuy wax rek la ci munta ñàkk su ko defee ñun ñëpp ñu xam ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nga xam ne wax na ko ne jigéen ñi sa rawatina nañ fexe ba mokkal suratu nuur ndax jigéen moo yor kër quartier bi du dara lu dul ay kër kese dëkk bi du dara lu dul ay quartier kon bu kër yi baaxee société bu baax mbokk looloo tax ba suratu nuur dañuy ñaax ci ne nañ jàngi ngelawaay nañ jàngi te xam ne place yi gën a màgg yi ñuy jànge mooy jàkk ya suñu borom daal di koy tudd fii buyutin azina allahu an turfa wa yuskara fii hasmuhu mbokk jàkk yi bu ñu defoon seen rôle da ngay gis société l'islam nii mu mel du ko mel ak bari nga gis ay nit ñu am juróom-ñaar fukki at fekk diine lislaam xamuñu ci dara ba dara booloo jeex lu tax naam société ya ñu nekk amul am jàngale da ngay gis dëkk yoo xam ne mbokk jullit dëkk bu rëy rëy rëy place bu ñuy jàngale diine amu fa lan moo fa am ay daaray alquran bu àjjuma jotee imam bu ñëwee taxaw ci kaw xutba bi arab la leen di làkk dem yoonam amul lenn lu ñuy gis am jàngale mbokk jàkka dafa waroon nekk am rôlam taxaw di jàngale bés bu yàlla sakk weer bu yàlla sakk at bi yépp jàkka ja dafa waroon nekk place jàngalekaay ba nga xamee ne nii ña nga xam ne dañoo génne ca jàkka ya ñu xam seen diine lañu fonk seen diine xataa tubaab bi bañ lislaam sax lu ñuy wax ci ndaw ñooñu nga xam ne tey ñooy ñooy jóg di góorgóorlu di tasaari lislaam dañ naan ils ont grandi sous l'ombre des mosquées mooy ña nga xam ne nii ci këru jàkk yi lañ yaroo na am su ko defee nga la waaye ndawal julit fexe leen di fekkee durus yi nga xam ne day am jàkk yi ñuy jàngale diine ci loolee ñi ngi sant suñu borom yàlla jalla wa ala moom mi jagleel xéewal ku ko neex yàlla nañu boole ci ña koy sant bañ koo damoo borom bi yàlla wërsëgal nit ñi fii ay dars yu ñuy def ci tafsir di ko def ci fiq yéen góor ñi Ibrahima Sarr mi ngi ci kaw di jàngale arab ak alxuraan ku ko bëgg yéen jigéen ñi soxna yi ñoom jale ñi ngi fii altine bu nekk ak àjjuma di jàngale diine yàlla ji loolee mbokk képp koo xam ne ni yàlla wërsëgal na la nga dëkk ci parage yi wala loo soree boo amul fu la jege soolal sa dàll ñëw di jàng diine yàlla ji diine lislaam mooy diiney jàng du diiney altoppe du diiney roy waaye mooy xam bala ngay def nga teg ko ci lu leer moo tax suñu borom yàlla suuratu nuur juróom ñeenti yoon mu ciy tudd ayatin mubayinaat ay yéen mbokk julit lii mooy la nga xam ne mooy suuratu nuur suñu borom yàlla dañuy jàngal ne mboolem lu nekk ci kaw asamaan yi ak suuf mi ngi sabbal borom bi na doon picc yey naaw na doon lu mën a doon mi ngi sabbal yàlla loolu nga la way foo toll del sabbal sa borom sabbal sa borom mooy nga xam ne amul moroom mooy yàlla mi nga war a gëm moom nga war a yaakaar kenn amul njëriñ ñeel la adduna wala alaxira ku dul yàlla subhanahu wa taala lii mooy la nga xam ne julit moom lay wax heure buy wax subhanallah loolu la ciy junju mooy lenn loo xam ne nii day jëm jëm ci man di ma lor lenn luy jëm ci man di ma jëriñ wala ci keneen du jóge lu dul ci yàlla jalla wa ala mbokk lii mooy suratu nuur suñu borom yàlla wàcce ko ñaax ci la nga xam ne mooy gouvernant yi ña nga xam ne ñooy njiit yi ngallaawaay nañu àtte nit ñi ci téereb yàlla bi ngallaawaay xam leen ne yàlla du tooñ kenn yàlla du jeng jëm ci kenn àtte bi gën a maandu mooy àtteb yàlla. bépp atte bu safaanoog atte bu yàlla atte bu jeng la waaye mbokk suratu nuur mi ngi nii di saar bu ñuy ñaax nañuy jàppante ci famille yi bëggante di ziyaarante suñu borom yàlla mu ne bu leen neexee dem leen lekk seen kër baay yi seen kër doom yi seen kër nijaay yi seen kër tante yi seen kër bàjjan yi seen kër xarit yi lii la borom bi jàll wala wax daal di koy détaillé tudd bàjjen tudd tante tudd bàyyi tax ila axiri pour lan ngiree doomu aadama yi dañoo war dim di ziyaarante di nemmeekonte képp koo xam ne jokk nga say mbokk yàlla jokk la képp koo xam ne dagg nga say mbokk yàlla dagg la loolee itamit yéen ndaw ñi ngeen yóbbanti ko ngeen def ko ab yóbbal ndaw ñu bëri léegi amul benn ndaw buy sol dàllam di seeti mbokkam ci yàlla tax fa nga xam ne fa nga dëkk amul kenn sa mbokk ko fay ñëw ko fay ñëw xarit la boo xam ne intérêt moo leen boole mbokk loolee nekk nekkul loo xam ne nii lu baax la islam gërëmut loo rey donte ne borom bi subhanahu wa taala la nga xam ne moom la ñuy mujjee ci suuratu nuur boobee mooy nee na fal yaxzari lazina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ngalla wayu julit xamal ne sa royukaay mooy yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam lépp looy def ci diine ji roye ko ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam sunu borom yàlla nee na na moytu ñi nga xam ne dañuy moy sunna yonent bi ne fitna mën na leen a dal wala la nga xam ne mooy mbugal mu tar képp ku lay woo ci jaamu yàlla na ca boole preuve yi wane ne lii yonent bi yàlla moo ko dégle lépp loo xam ne taaru na riir ma bëri na ca daje ya bëri na ca ca amuloo ko lay ci alxuraan ak sunna ngalla waaye bul topp loolee xamal ne la nga xam ne mooy mbooloo mooy la yàlla gërëm la nga xam ne mooy dëgg loolu dong mooy sax àdduna lii dong mooy sax alaxira mbokk lii ay tënk la ca aayaat yooyu nga xam ne mooy suratu nuur ñi ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo wàcc leer yal na yàlla leeralal ñu suñu xol yi yal na yàlla leeralal ñu suñu jëf yi yal na yàlla leeralal ñu suñu jàkka yi yal na yàlla leeralal ñu suñu kër yi yal na yàlla leeralal ñu suñu dëkk bi yal na fi yàlla teggi lépp loo xam ne ay ñaawteef la ak fitna ak i noonoo yal na fi yàlla wàcce jàmm ak i ngëneel ak i barke yal na yàlla may ñu leeru bàmmeel may ñu leer keroog ba nga xam ne dañuy jëm si root yal na ñu yàlla wërsëgal ñu dugg aljana بلا حساب من نون مبكو جليد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين